sañse bu jaar yoon tissu bu baax lool boo ko bëggee demal seeti waa góor yombul tissu waa kër Serigne kër si yooyu ñu ngi nekk Guédiawaye rond point bu bees en face clando yi jëm si góor yombul tissu am na ñu itamit beneen boutique bu nekk Guédiawaye ca arrêt 27 bi xeetu tissu boo bëgg am na ci góor yombul nee naa leen tendance su ren ji foofu rek la mën ngeen ñëw woo ci 77 559 40 70 wala 77 660 07 68 kon nag gars yi bu leen ko jaawale suñu mooy jaune bleu góor yombul waa kër Serigne Babacar Sy yéen yàggatul incha allah rabbi li mu yaakaar dina ko nax day summeeku mu summeeku ñu taxaw ci géew bi bu arbitre sifflé man duma ma xaar combat boo xamante ni combat bu am importance fu mu combat bi du yóbbu man laay gis non liggéey na nag mais amul doole Lac Rose lu mu duy naka xeeb maa liggéey damaa liggéey bari wax la boo si ma ko feeñ mooy dëgg jour si maay gën a jekk maay gën a rafet maay bëri li ma koy laaj mooy bu mu fi abandonné rek kon contre mu si abandonné le 30 avril bi arène nationale ñu si ànd ak Njàmbur production waa seen affiche préco e ñi nga xamante ne maanaam seen affiche préco e rek lay daw asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñu suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare tey mardi 11 avril 2023 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay yi comme ni ngeen koy amee chaque jour ñu ci ànd ak journal sunu làmb journalu record di ci ànd ak les arènes point com waaye nag képp koo xamante ne nag bind nga ci làmb rek ñu ci ànd ak yow waaye nag di ci ànd ak waa Mbirkilaan FM ak waa Vice FM di jëmoo ak Babacar Sarr maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu seen auditeur di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi bàyyi xel luttetv.com ñu commencé ko ci journal bi nga xamante ni wala boog ci wala boog ci US Soir US Soir na tey Eumeu Sène xëy tàllal li nga xamante ni moom mooy micro wala wax ji nga xamante ni Eumeu Sène waxoon na ko dox ci diggante ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang numéro 2 càppaacoli ak ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé sëll bu ndaw mu mel moom gannaaw ba ñu wax ne ñoom ñaar daal am nañu ay jafe ñàkk dégg am na ci seen diggante ndax combat yi xamante ne taxaw na diggante Ama Baldé Modou Lo diggante Boy Niang ak Modou Lo nag xëy na sotti ñu ndox mu sedd guyu guyu guyu nee na amuñu benn benn benn problème entre Ama Baldé ak ki nga xamante ne moom moo di Boy Niang numéro 2 problème daal amul seen diggante ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te moom mooy seen mag du seetaan benn yoon ñu am benn benn benn benn problème ki nga xamante ni bëri woon nañ ñoom ñaar muy digganteem ak ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye numéro 2 combat bi ñëwaat journal sunu làmb na ci wan ñu ëmm seen mu taxaw ak Balla Gaye numéro 2 mu mel ni ba ñu bëree 2015 la ba ñuy def seen dernier face to face ëmm seen nag ak Balla Gaye numéro 2 ku ci nekk yaa ngi xool sa morom di reetaan le 30 dañuy xoolante di dóorante ay kuy prañ dafay mel ni loolu lañ nar le 30 juillet incha allah rabbi seen première face ba ñu ko defee. mu mel ni daal kaf gi dafa mel ni bari woon na ci torop torop moom Eumeu Sène le fou de Taïsinga nee na daal commune moom du am ci seen combat bi moom nee na moom day nit ñi dalal seen xel li nga leen di gis ñoom ñaar ñuy reetantee li ñuy reetaanantee jàmmoo beeg yooyu yëpp li mu bëgg daal mooy daan Balla Gaye numéro de pour une troisième fois waaye Balla Gaye numéro 2 tamit dafa mel ni tontom foroxul ndax neen nag instant bi neen amul benn temps boo xamante ni da koy fixé ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène ndax xam na lan mooy daan ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène bu ko bëggee daan dina liggéey bu baax a baax tey dina ko respecté bu baax a baax a baax a baax nee na nag xeex waroon mën a ñàkk ci boo combat ba waaye nag bis bu ñu ci demee nag moo xam ni lépp lépp lépp lépp lépp dëgg la diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye numéro 2 loolu lañ ci journalu sunu làmb wax wala boog wala boog wan nañu tamit fa Eumeu Sène di ñaanalee kii nga xamante ni moom moo di Balla Gaye numéro 2 naa gannaaw ba nga xamante ni jóge na Màkka keroog bi ñuy def seen face to face bi Balla Gaye tàllal na ko ay loxoom mu dal di koy ñaanal Balla Gaye numéro 2 pour daan Eumeu seen dana ko jaral mu dellu fële nga xam ni moom mooy INSEP de Paris pour waajal bu baax a baax a baax a baax a baax a baax tey nee na bés bu paree ci loolu moom carrière am ngi koy arrêté bis bu amee 40 ans dina arrêté li nga xamante ni moom moo di carrière am Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène bi ñu tàqalikoo am na ponkal mu mag moo xamante ne mu ngi leen di xaar fas yéene sampu ndënd ci seen diggante muy tafaatin mu mel ni moom positionné woon na bu baax a baax ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène ki taxaw ci diggante Boy Niang ak ki nga xamante ne moom moo di Ama Baldé di Modou Xarañ Lo moom moom instant bi bëggu ci yéey yàbbi keroog bi nga xamante ne amaloon nañ benn match de gala digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Wally Seck ñu organisé woon benn match mu mel ne presse ba teewe woon nañ ko waaye Modou Lo moom dafa mel ni bëggul woon kenn kenn ku ko laaj ci digganteem ak ki xamante ne moom moo di Boy Niang waaye bëggul ku ko laaj tamit ci digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di Ama Baldé ñaar ñi bu taxawee danañ leen laaj seen diggante mu Issa Pouye ak Bébé Diène journal Sunu Lamb mi ngi wax ni combat boobu la xam daal bi ñu ngi koy waxtaanee ndax dina taxaw wala du taxaw nañ yónni yàgg bii tamit amateur yi bëgg nañ lool lool lool mu taxaw ba ay promoteur nekkoon ci dox ci diggante Pape Ndoye ak kii nga xamante ni moom mooy maamalamin bu Lansar mu mel ni amateur yi ñu ngi waxaane boobu la ñu ngi waxtaane boobu la combat journal sunu lamb moom moo ñu wax loolu noonu ci biir tous yi ñu des ba léegi rek ci combat yi nga xamante ni journal suñu làmb nee na ñu ngi koy démarché muy ñaabu ndaw ak kii nga xamante ni moom mooy mobile 2 bu Grand ngi ñuy wax daal combat la xamante ni amateurs yi bëgg nañ ko li amateurs yi promoteurs yi bëgg ba taxawal ko mooy Lac Rose ak Coins mu war a am le 30 avril incha allah rabbi nga xamante ni moom moo di

dañuy des ba léegi rek ci journal sunu làmb ak ki nga xamante ne moom moo di Malick Niang numéro 2 gannaaw ba mu toogee juróom at yoo xamante ni bëriwul journal bi daal wax nañu li waral dëgg dëgg dëgg kii nga xamante ni moom moo di Malick Niang war a def li nga xamante ni moom moo di retouram nee na nag wax waxeet la ko jàppee moom kii di moom du ko ne New York li ñu wax ne daal lool ak wax waxeet la ko jàppe waaye la waral wax waxeet ga boo jëndee journal bii di journal sunu làmb da nga ko wax ndax da ko gis ndax nee na Malick Niang taxawoon na ni buñ ko fayee vingt milliards sax wala boog cent milliards sax dootul takkaat ngemb nan day bëri ji ñu ñëw ba léegi rek ci journal bi nga xamante ni moom moo di journalu record journalu record Ada Fass moom moo xëyal jeexal coow li amoon digganteem ak li nga xamante ni mooy Fass waaye digganteem ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay soppeem yaakaar naa ne seetaan ngeen vidéo ci Lutte TV journal bi di record ci xalim ak Assane Waalo reprendre loolu nga xamante ni moom moo di article gannaaw ba mu jéggaloo ay supporter am ay jegeñaaleem waaye ay ay kilifaam jége jéggalu tamit kii nga xamante ne moom moo di sarko yaakaar naa ni seetaan ngeen ko waaye nag ak lu mën a xew wax na ci digganteem ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo amoon ñoom la amaloon problème ci ci wàllu moto yooyu noonu boo jëndee record di nga ci gis yeneen détail yoo xamante ne Assane Waalo Gueye exploité na ko exploité leneen loo xamante ne amoon na tamit ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène loolu yëpp mi ngi ci journal bi nga xamante ni moom moo di journal sunu làmb signature bi amoon fa la nga xamante ne moom mooy Kaolack Gurel ak Boy Saloum loolu tamit yaakaar naa ne combat la xamante ni waa Kaolack ñu ngi koy xaar ndax it combat la neex a neex mu mel ni loolu lañ leen andi loon ñiy bàyyi xel Lutte TV point com fooy mën nekk si àdduna bi ñu ngi leen di bégg bu baax a baax di leen ziare di nuyu waa xew-xew làmb yi di waajal troisième édition bi di nuyu Abdou Tall bu xarañ loo Cheikh Bass doomu ndey Pape Demba ñu leen di bégg lu bëree bëri ñu leen wax ne nag troisième édition bi Fallou Ndiaye tëgg na ko pour le juin maa ngi koy waajal yéen tamit yaakaar naa ni yéen a ngi koy waajal ndax vraiment comme ni ma koy waxee rek xew-xewu làmb ji yaakaar naa ne bokk nañ ci ñi nga xamante ne tey ñu jiitu ci ndaw yi doxal làmb te boole wuñ ci wax ju bari ñun ni ngi leen di bégg bu baax a baax ñoom Modou Baye Fall ah ñoom Max ah Abdou Tall ah ñoom organe bu far bu jar ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgg lu bari bari du nuy waa groupe Lutte TV aussi ah ñoom tuuti yaay Sarr Omzo bu Garga Serigne njur bu Osodu ah Mor Jaxate ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax di ko ziare daa bu jëm tiri ah, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu moo Njaay directeur Séeri Madan di nuyu tamit ki nga xamante ni moom mooy Afia ah, ak Mor Ndiaye doomu nday Lure Diane di nuyu Mansour kase ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgg lu bëree bari di leen ziare du ma fàtte tamit ki nga xamante ne moom mooy ah sëñ siisa bu sëñ Babacar dañ koy bëgg bu baax a baax di ko ziare di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Tafa Fall ah borom Baara Couture doomu nuyu Mbow Ndiaye directeur Série Madeleine moom nee naa leen lu mu ñëwul rek baaxul ñi nga xamante ne daal ñu ngi ci diaspora bi nañ ko yónnee mesures yi rek bu soobee yàlla lu ngeen bëgg dana leen ko ñëwal di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu taala. 30 yàggatul incha allah rabbi li mu yaakaar dina ko nax day summeeku mu summeeku ñu taxaw ci géew bi bu arbitre sifflé man duma ma xaar combat boo xamante ni combat bu am importance fu mu combat bi du yóbbu man laay gis non liggéey na nag mais amul doole Lac Rose lu mu duy na nga xeeb maa liggéey damaa liggéey bëri wax na boo si ma ko feeñ mooy dëgg jour si may gën a jekk may gën a rafet may bëri li ma laaj mooy bu mu fi abandonné rek kon contre Moussa Ndoye le 30 avril bi arène nationale ñu si ànd ak Njàmbur production seen affiche preko ñi nga xamante ne ñooy diviser combat bi Sénégal Afrique Europe seen affiche preko rek lay daw sañse bu jaar yoon tissu bu baax lool boo ko bëggee demal seeti waa góor yombul tissu waa kër Serigne kër Sy yooyu ñu ngi nekk Guédiawaye rond point bu bees en face clando yi jëm si góor yombul tissu am na nañu itamit beneen boutique bu nekk Guédiawaye ca arrêt 27 bi xeetu tissu boo bëgg am na ci góor yombul nee naa leen tendance su ren ji foofu rek la mën ngeen ñëw woo ci 77 559 40 70 wala 77 660 07 68 kon nag gars yi bu leen ko jaawale suñu couleur mooy jaune bleu góor yombul tissu waa kër Serigne Babacar Sy yéen rek lañ fi nekkal.